teew yëpp asalaamaaleykum la presse asalaamaaleykum Sénégal mooy njëkkee ci nuyu bi bawol bi mu dëkk muy Diourbel Pape am seen doom inspecteur des impôts de domaine leader politique à Diourbel candidat aux élections législatives nekk tête de liste de Diourbel avec la coalition serviteur bi nga xam ne tête de bi ki ci nekk mooy Pape Djibril Fall mooy wax ne li tax ñu dugg ci politique mooy bokk ci ñi nga xam ne danañ jëmmal Sénégal li tax ñu dugg ci politique mooy bokk ci ñi nga xam ne victoire du Sénégal dinañ mën a yëkkati suñu loxo ne ci lañ bokk li tax ñu dugg ci politique aujourd'hui mooy siggil ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci biir réew mi néew doole amuñu kàddu amuñu ko leen waxal bi ñu ñëwee ndakaaru nag ne dañuy déposer suñuy liste parrainage rencontré nañ fi ab coalition bu ñuy tuddee les serviteurs au départ li ñu jàppoon mooy mën a Khadim Sylla dañuy dem ci élection législative moom mu yore mouvement bi nga xam ne mooy taxawu liggéeykat yi man ma yore mouvement bi nga xam ne mooy Diourbel d'abord ma demoon ci élection municipale jëloon fa quatrième bi ñu ñëwee di déposer suñu liste am na ñu ñu rencontré muy coalition les serviteurs ba ñu waxtaanee ñoom soxla woon nañ ñu soxla nañ leen parce que li ñu jàpp mooy que ni booy dem élection da ngay boole say doole. pour mën a am chance am victoire am ay député à l'Assemblée nationale boo xam ne dina mën a wax pour askan bi ba ñu boolee suñuy doole nag ne dañuy déposer suñuy parrainage am na lu bari loo xam ne xew na fa il faut ñu leeral ko askan bi la fa xewoon mu méngoog li xew ci am ak am satu saw Sidibé bi nga xam ne mi ngi jiiñ ki nga xam ne mooy Pape Djibril Fall ne dafa sàcc ay parrainage am ñun ma ne dund nañ ñu lu mel noonu parce que Khadim Sylla mi yore mouvement taxaw liggéeykat yi mi ma àndaloon pour ñëw Dakar pour déposer suñuy parrainage pour bokk ci coalition boobu ba mu amee jot di waxtaan ak ñooñu jabaram bi yore woon clé USB bi présenté leen ko ñoom jël nañ clé USB bi dugal ko seen machine nar a jël li nga xam ne mooy parrainage ba ko Khadim Sylla yëngatu na ba dënnam jóg fa ba ñu xuloo fa ba nara fa xeex ba ma ñëwee expliqué nañ ma situation bi neexu ma waaye ñu waroon ànd ci coalition ñu mujj déggoo ci ay conditions ba dugg ci biir coalition bi ba ñuy defar suñuy list def nañ liste yi ensemble déposé ko xuloo bu nekk am na fa waaye li ñu bëggoon mooy que ni coalition bi am njariñ ku nekk gis ci sa bopp dëkk bu nekk gis ci sa bopp ba ñu déggoo nag ba déposé suñuy liste dégg nañ Amsatou Sow Sidibé mu ne dañoo sàcc ay parrainage am ci la sama xel ci la sama xel tey parce que ma ne ñun dund nañ situation boobu parce que bi ñu indee suñu parrainage dama ne dugal nañ ko ci biir machine bi xamuñ dañ ko jëloon xamul dañ ko utiliser li may dëggal mooy leen mooy man du ma dugg ci ay fen duma dugg ci ay mascarade duma dugg ci ay njuuj njaaj coalition boo xam ne nag dañuy njuuj njaaj wala dañ leen di jiiñ sàcc ay parrainage man duma ci nekk dama ne bu bu dee parenage ñun vingt-huit mille parrainage lay indil ci coalition bi bi ñu ñëwee dama ne bi ñu ñëwee bi ñu ñëwee parrainage yi ñu indi vingt huit mille la Pape Djibril Fall huit mille parrainage la indi APR dix huit mille parrainage la indi man du ma faiseur de roi man du ma faiseur de roi li ma bëgg moom mooy xeexal Diourbel c'est pourquoi ma dem ci département Diourbel continue continue. monsieur Cissé monsieur Cissé monsieur Cissé monsieur Seye. continue continue. dama ne li may wax danaa ko wax mais dama ne dama ne dañoo indi vingt huit mille parrainages dama ne dañoo indi vingt huit mille parrainages ki nga xam ne mooy Pape Djibril Fall mënul am sax dix mille parrainages ba bëggee ba pare bëgg jiite coalition bu toll ni les serviteurs voyez bien. il faut prendre tout man avec la man damay battre campagne au niveau du département de Diourbel du ma bokk coalition bi daal coalition bi du ma ko ci département du ma samay parrainage dem ci département Diourbel duñ ma teree campagne parce que ñoom taxuñ may politique parrainage nu mu demee 28000 parrainage lañ déposé Pape Djibril Fall 8000 parrainage la indi kii di MPR indi 18000 parrainage baal ma répondre li tax demalu ma sama bopp li tax demaluñu suñu bopp mooy lan mooy dañoo gëmoon ne bu ñu boolee suñuy doole ñun danañ mën a réussir ensemble. mais grawul waaw waaw je me bats pour la ville de Diourbel. nage pas dans l'erreur je nage pas dans les situations mensongères Pape Djibril Fall est dans une coalition nébuleuse. Amsadou Sow Sidibé a dit la vérité parce que nous avons subi la même situation. Moi, je suis un cadre de l'administration, je me suis engagé dans la politique. Je ne vais pas faire défaut. Je ne vais pas nager sur l'erreur. Je vais battre campagne à Durbel. S'il vous plaît. Voyez bien. C'est bon, c'est bon. Pourquoi, pourquoi,